waajal bis bi ak bokk yi mu feggool dikk fekk su ànd ak mu bis bi ñëpp ñu ngi leen nuyu di jaar leen nuyu boobu ndokkee beeg lépp ceew turam di ko jox wàccuwaayam di joxit ñi fi toog ñëpp seen seen wàccuwaay di nuyu itam taalib yi nga xam ne itam taxawaay bi ak caaju lépp seen taxawaay la ñu ndokkeel leen ci bis bi ñaan borom liñ fi jàng ci alquran jàng ko ci ay xasaayid def ko ci salawaatu ala nabi ak yu baax yépp yàlla na sunu bam nangu lépp ful ko àggale ci ruux ak sëriñ Amar bis mi nga xam ne la ñu fàttaliku ak mboolem mbokk yam nekkal foofu yépp gannaaw lu ni ko mbokk mi waxe léegi tomb waxtaan mooy ahamiyatul ilmi fi xayaatil fard wal mujtama solo si xam-xam am ci dundug nit moom rekk waaye solo si mu am itam ci dundug société eh, mbokk wax na léegi ci ubbi xam-xam mooy lépp xam-xam mooy li doxal lu mën mooy doxal àdduna mooy doxal diine amul lenn lu mën a sotti ci àdduna wala lu mën a sotti lu jëm ci mbirum yàlla lu may xam-xam daf ko laltaay moo tax mu am solo am solo googu nag dana feeñ ay mbir yu baree baree baree bare lépp ci tënk lay doon xam am na solo bokk na li tegtale am solo bu sun borom bu tànnee doomu aadama def ko xalifaam ci kaw suuf xam-xam a tax ni ko alxuraan nettalee ne yow Muhammad fàttali ba sa borom di wax malaaka nan leen inni jaayilun fil ardi xalifa dama nara def koo xam ne mooy doon sama xalifa ci kaw suuf mooy nekk sama kutaat ci kaw suuf malaaka yi na ko moo ndax danga bëgg wutal suuf si koo dafay yàq ak di deret te ñuy say jaam yoo xam ne dañ lay jaamu di la wéetal di la sellal te duñ la moy kon dañ koo bëgg a wax ne ñoom ñoo gën a yay ci doon xalifa yàlla ci kaw suuf waaye su mboon ne la xam naa lu ngeen wut def ci aadama lim def ci moom ci xam-xam yankeewal ko li ci kaw suuf lépp lu ci nekk nu mu tudd lu ko tax a jóg lu ñu ko jariñoo aadama xam lépp la ngay xam ci dara sun mboom ngir firndeel nag loola mu booleek jotaay malaaka yi ak aadama ne malaaka yi su fekkee li ngeen wax dëgg leen ci yéen lii ci kaw suuf laa bëgg ngeen xibaar ma lu mu doon lu ci nekk lu mu tudd lu ko tax a jóg ci li nga koy jëfandikoo malaaka yi xamuñ ci dara nekkoon yoo xam lu may loon xamal suñu ba nekkoon nag aadama xamal leen ko yaa aadama an bi hum bi asmaihim aadama daal nekk jàngalekat malaaka yi mel ni ay donga mu di leen jàngal kon xam ngim xam suuf xam li fi nekk jumtukaay lu ko tax a jóg moo tax suñu ba def ko muy xalifaam ci kaw suuf kon li tax mu def ko xalifaam mu comme xam-xam a tax mooy li fi ne kon dara mënut a sotti lu may xam-xam ko laltaay loolu ba tey di wane am solo gi xam-xam am solo xam-xam it am na solo mbokk li ko firndeel mooy nit mënta ragal yàlla te amul xam-xam te ragal yàlla mooy lii rafet mooy lay kur mooy tax diine rafet mooy tax suñu borom nangu jëf mooy tax a dem aljanna te ragal yàlla googu mënta am te xam-xam lal tayu ko innama yaxsha allah min ibadihi ulama la suñu borom wax ñi mën a ragal yàlla mooy borom xam-xam yi mooy ñi ko xam loolu suñ tubaa naan inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afnal funun ki jàng fànni xam-xam yépp jeexal téere yépp waaye nag ragalul yàlla sëñ Tuubaa na amul xam-xam la ma xoon lu ñu ko tuddee waaye du doon xam-xam kon balaa tudd xam-xam day fekk lal ragal yàlla laltaay ko ragal yàlla googu ne mënta am lu may xam-xam da ko laltaay bokk na li takkale solo su xam-xam mooy xam-xam mooy liy wane wala mooy li feeñal valeuru doomu aadama ni nit mënta am wëleer wala wëleeru mënta feeñ te amul xam-xam na shaay boo waxe woon ne taallam fa laysa almaru yuladu aaliman wa laysa axwa ilmin kaman huwa jaahilu fa inna sagira alxawmi wal ilmu indahu kabirun ida ruddat ilayhi masailu wa inna kabir alxawmi la ilmu indahu sagiru isa dar ilayhi almahafilu nee na na nga jàng sàkk ko xam-xam jox ko pëstéef jox ko yitte te xam ne mëni su ta xam mukk te jàngoo waaye ki xamit du yem mukk ak ki xamut mu ne ki gën a néewi at gën a woyof mbubb gën a niir ko ñàkk solo te fekk jaar na fi mu war a jaar ci jàng ba am xam-xam su taxawee ñu wute ja masal dellu ci moom kere su kere ku yëkkatu lay doon kere ku rëy lay doon kere ku am solo lay doon waaye ka ëpp ay at nag dàq gomewu gën caa fees gën caa ndiru kilifa te fekk xamul suñu wootee ba neen dellu ci ma keroog ko tuuti lay doon ko xeebu lay doon kon wëleer kon li ko mën a jox nit mooy xam-xam ba tey bokk li li tegtal solo xam-xam ba tey mooy su dafa digle dimbalante ci jaam ñi wa taawanu alal bir wa taqwa dee leen dimbalante ci njëkk ak ragal yàlla waaye ñu gis na nag nit lépp lu mu am soo cee dimbalee day wàññi ko lépp loo am soo cee dimbalee day wàññi ko ba mu des xam-xam xam-xam loo ci gën a dimbalee muy gën a yokk di gën a yaatu di gën a rafet loolu ñuy jàngale ñëpp xam nañ ko loo gën a jàngale sa xam-xam di gën a yokk sa dégg di gën a yaatu di gën a am fàttaxu bu dul xam-xam nag soo ci dimbale day wàññi moo tax shaayir ba doon wax ne xaliliya afnil umra gayral mumaddadi ala nashabin minhu waasayte yasdadi wala tafniyanna al umra fi jam'i ma ida iltabihi turma win jute yen fadi sama xarit dikk waay sa dund gàtt gi nanga ko jeexal ci sàkk lu am njariñ loo xam ne soo ciy dimbalee muy gën di yokk waaye rik bul jeexal sa xam sa sa sa sa dund mukk ci sàkk loo ne soo ko amee it soo ca nayee ñépp ŋàññi la soo mu jax muy alal alal soo ca nayee ñépp ŋàññi la te soo ca tabee mu jax xam-xam na loo ci gën a tabe muy gën a bari di gën a yaatu di gën a rafet loolu ba tey bokk na li tegtale solos xam-xam bokk na li tegtale solos xam-xam ba tey xam-xam dafay dundal xol dafay leeral bakkan dafay dindi lëndëm gi tàbb ci xol ba nga ko jëlal gumba ndax xol day gumba ni bët di gumba te gumba xol mooy si gumba ak bët lëndëm ngiy gumbaal xol nag xam-xam mooy la koy ñore ba mu set loolu la genre bi doon wax te simtuwaa nettali ko fal ilmu yuxyi qalba man taallama yunawiru nafsa kama yulul ama xam-xam dafay dundal xolub ki koy xamlu waaye dafay leeral bakkanam dafay ñori lënnam gi ko mën a jural silmat gi ko mën a jural gumba xam-xam dafay dindi lëndam googu bam set ci xol kenn wax ne al ilmu fihi xayaatun lil xulubi kama تحيا البلاد إذا ما مسها المطر والعلم يجل الأمى عن قلب صاحبه xam ci la di dunde lu njëkk maanaam taw di dundaleem réew xam nga réew mu la ëpp lu muy taw rek moo lay gën a naat moo lay gën a dund noonu di ndox di dundale suuf nag noonu la xam-xam di dundale xol mu ne xam-xam dafay ñori lëndëm ngi jural gum jural xol gumba ni weer yi di ñori lu lëndëm gi su feqee guddi su guddee su lëndëmee su weer wi ne tëll feq na muy dàqi lëndëm bi ba mu sori su xam-xam tabi ci xol noonu lay loolu lay dàqi ba mu sori ba xol ba dootu gumba xam-xam it ci la bakk tegtaloo ba mën a gis dëgg ni bët di tegtaloo ci leer ba mën a gis zahir xam nga bët kese du gis ci leer lay tegtalu ngeen mën a gis soo duggee ci seen néeg guddi tëj fay sab làmp dootoo gis dara kon ci leer lay tegtal doo mën a gis ni bët di tegtalu ci leer ngeen mën a gis zahir ni la xol tegtalu ci xam-xam ngeen mën a gis dëgg wala añ moo li naf si noonu te sadul bi àla aqi misil noori la ay ni xam-xamit ci la dee fi gënante ci la dee si rab ku la gën ci la la gëne ku la raw ci la la rawe loolu maanaan waalam bi anna ma tafawutul wara bil ilmi diin kunu fasbira wa bihima yafdulu man xat fadla la bintisaabihi liman xat la min jihatil ansaabi ummin wa abi fa fihima tahima taddu bi nen na nga xam ne bi nekk li ñu rawante du ci askan de du ci deret de ci li ñuy gënante mooy ca xam-xam ak diine am ak jëfe xam-xam te mooy diine nee na ku la gën ci la la gën waaye kenn du gën a kenn ci askan aw askan yóbbal la ci baax askan bu baax yóbbal la ci ko bëgg a dem waaye amu yóbbal te ne faax nag taxut a jiitu kenn amu yóbbal ba noppi ne faax taxut a jiitu kenn kon am ki am bokk yu baax am na yóbbal léegi doxa ca des waaye gënante nag moom ca xam-xam ak diine lañ ko defe suñu baa ne kon nanga farlu ci ñaar yooyu ki teggin ngir nag yooyu ci daje ci solo sos mu so am solo moo tax suñu Tuubaa soññ mboolem yaay ci moom mboolem taalibe yi ci ñu dëgmal xam-xam jox yi nangoo jàng te maytu képp ku leen di waaye fala xam-xam baa mu deen ko doy doy dalloo fa saari'u lil ilmi ajma'ina liwajhil jalil xaasidina yéen ñëpp mbaatum ñëpp nag bawut kenn góor ak jigéen ak mag ak ndaw ñëpp ajma'ina la wax fa saari'u lil ilmi ajma'ina yéen ñëpp waaye sàgg nag na jëm yàlla dong tax bu ca lal dara lu may ngir jëm yàlla dong loolu na jiit nag beru gone di jaam yàlla ndax soo teelee beru da nga jaam yàlla te fekk li war a jiitu ci xam-xam amut su bakkan di ko jekku la su seetaan di koy jekku la yay ñu àndal di ay noon yi ku ci di ko jekku la kon faaw ndax lëndëm yi làqate ci pas-pasi bi daay dafay dox diggante xolum nit ki ak leeru topp yàlla subhanahu wa taala mu ne képp ko ne waaye fa la xam-xam maa doon ko tereloo na la woon mooy xalifa iblis fii ci kaw suuf sooy war xilifa xilifa iblis ba gis kuy tari xam-xam ne jàppal ci loxo ma googa wa man nahaakum ani taallumi fa huwa xalifatu lainil mujrimi wax ne képp ku leen tere xam-xam ba ba deen ko doyalal na xam tereem googeekat ci réer rek leen bi jëmee na xam-xam wala boog jëf mu tegul ci xam-xam faaw ak yàq tabbi ci eh, moo tax nag Sëñ Tuubaa dénkaan dénk boo xam ne mel na ni ko ca taral jëmale ci murid yépp ci ñu sàkkoo xam-xam da caa waxoon ne li taalamu ayyuhal muriduuna innani amatukum bi taallumi fa man xabila fal yaqbal wa man lam yaqbal fala yalumanna illa nafsah wallazi amatukum bi taallumihi huwa ma yusaxihu al aqaida sunniya wal amal saniya faman lam ya'lam shay'an minha ba ba wax ji jeex daa wax ni rek yéen mboolem murid yi ngeen maa si xam ne digal naa leen ngeen dem sàkku ci xam-xam képp ku ci dégg sama dénkaani bi te jëfe ko sa jaan wàcc na sama jaan wàcc na ñu ngi nuyu ñëpp ci turu Serigne Cheikhouna ak mboolem sët yi xëj na temps bi moo ko mayewul ndax li des ci ñu dem julli ji ci 15 minutes lay war a toll te itam sëñ Cheikh Abdoul Atif war na jël kàddu ci turu xalif bi waaye bu noppee rek orateur yi nga xam ne waroon nañ leen jox yépp ñu jéggal ñu ko ñu jox sëriñ Amdi Moustapha mu tëj ndax ñu mën a ñaan dem julli ji kon ci turu sët sëriñ Omar yépp ñu ngi sant ñépp ñi fi teewoon démb ci liggéey bu am solo bi ñu doon defal sëriñ Omar ak ñi fi teew tey ci liggéey bu am solo bi nga xam ni moom lañuy ñuy defal sëriñ Omar ñu ngi sant ñëpp bàyyiwuñ kenn di sant suñu waajur yi nga xam ni ñoo fi teew te ànd ak sëriñ Amdi Moustapha te ñu bañ a lim rek góor ak jigéen ñi ngi sant ñëpp ndax ñooñu may fit dooleel ñu yëkkati ñu won ñu ba ñu yegg si fii ba mën a liggéey lii ñu liggéey tey ndax ku ci nekk li nga yor mu néew mu bari jël nga ko jox ko say doom jox ko say sët ni leen dem leen ngeen liggéeyal sëñ maam Sëriñ Omar kon na ngeen xam ni li ñu réussir démb réussir ko tey bu dul woon ak suñu baay yi ñu jox ndigal ñaanal ñu responsabiliser ñu duñu ko man kon ñu ngi leen sant ci kanamu mbooloom yëpp di leen sant ci kanamu àddina bi yëpp di jéggalu xëj na am na yu bëree bëri yu ñu waajoon waaye waxtu wi mayewu ko moo tax ñu tënk ko rek kon ñu jox kàddu gi Serigne Cheikh Abdoul Atif mu tënk rek boo ko defee ñu jox sëriñ Amdi Moustapha ñu mën a waajal waxtu timis bi ndax jot na ba noppi. sëriñ Mountakha dañoo yebal si woon na buñ ñëwee nañ ko jottalil nuyoo bi nañ ko nuyul sëriñ Moustapha mu nuyul ko bokk yi fi daje yëpp ndax sëriñ Mountakha wax ne bis bi rëy bisam kër gi di këram. lu jiitu lii ba lii existe loolu it bu ko waxee li mu ciy jublu mooy lu jiitu muy sëriñ Muntaxa kër gi kërama woon bis bi bisama woon ci ngir yu bari ci bokk gi jàll ak kóllëre gi jàll xanaa kon mën na caa tudd rek moom kóllëre ak sëriñ Omar mi borom barab bi ak sëriñ Bassirou te mm, ñu bari xam nañ ci lu bari waaye lépp it neexut a xam waaye ñu bari xam nañ ne sëriñ Omar wala réew suñ Basiiru lool waaye sëriñ Mountakha it wala réew suñu am di la lu yàgg jiitu lii te nun ñi mën nañ koo seere ndax yabal si nanu ba tàyyi ci bis bi jóge nañ poroxaan ay yoon yoon bis bi tax noo jóg mu yónni si nu ne nañ ko ñëwal fi Serigne Moustapha xamal ko ne ko bu mën bu mënoon ñëw moom mooy ñëw ndax jaral na ko ko ci wet yëpp diggam ak Serigne Moustapha jaral na ko fu Serigne Moustapha nekk ak lu mu nekk rek mu fekk ko fa ànd ca moom ndax cofeel cofeel gu dox seen diggante ak kóllëre gu dox seen diggante tam yàgg lool te yàgg dë dëgër yàgg rafet na mu doxe woon ca waajur yi ni ma ko waxee léegi muy diggante Serigne Omar ak Serigne Bassirou kon Serigne Moustapha Serigne Mountakha nee na ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ma nga xam ne bu ko mënoon moom mooy ñëwal boppam bi mu xatee it mu yónni sinu ak loolu ci tuuti tuuti mu ñëw teewal ko fi rek jot lil ko ay kàddoom nee na yaag sa bokk yi fi daje yëpp tàmbalee ci sëriñ Aliou ak njaboot gépp ñi doon taxawu bis bi ak ñi bokk bis bi ak bokk yi nga xam ne dañoo ñëw ngir wuy si bis bi dañu mu taxaa ñëpp mi ngi leen amul cant ak ngërëm ak ñaan ndax gëm na ni ku fi ñëw moom ñëw gëm na ne lu fay def moom ko def ndax dara génn ko ci kon mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan rek yàlla ñu ko yàgg taxawee te yàlla sunu boroom nangu lépp jottali yiw ci mag ña waaye mu dellu si waat ci yéen ñi fi nekk ngeen yàgg koo taxawee sunu boroom dafa leen ci ngërëmul mag ña ak ngërëmul Sëriñ Tuubaa xanaa liñ ci doon dolli rek mooy ñu fàttaliku ne bis yu mel ni lu am solo la ndax ñaari yëpp wuy ji wooteeb ku baax ñëpp xam nañ ne yiwu yàlla wu rëy ma nga ci yàlla na ko ci sunu borom defal daje ngir ku baax itam fàttali ko ko fàttali ay jikkoom fàttali ay doxinam soññ ca roy ca man ca yokkoo ci wépp yiw lu jar daje kon daje yi lool rekk lay jëriñ kon bis yi am na solo lool ñuy dundalal mag ñi seeni jeexit di fàttali ko seeni jikko di taasu seen barke kon bu ñu dajee ngir yooyu sëriñ bi nee mi ngi ñaan ñu daje ci ak tawféexi sëriñ Touba nee na mi ngi ñaan mboolem ku fi teew sun borom fekkee loolu la ko déwén ci ak man ci jàmm ci ak mucc ci tal sun borom mën na ko bu baax yàlla na ko def nee na itam mi ngi sàkk ngeen ñaanal ko bu baax mu mën a ànd ak yéen ba fekk yéen ci liggéeyu sëriñ Touba bi bu ca xelam dalee lool xolam sedd ca lool ndax yéen ji mu ci bokki taalibe bi yëpp rawatina yéen bokki boppam yi te ànd moom ci jàppale ko ci liggéeyam Serigne Touba bi ak ni ko ci ñëpp yéenee ndam loolu gis na ko bu baax yéeg na ko bu baax mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kon dañuy gàttal kàddu yi ni ko bokk a waxee timis dafa jot ba noppi dañoo mënta ñàkk jottali kàddu yi lu mu gàtt gàtt ndax ginnaaw dañu noo yónni faw nu jéem a jotal faaw nu jéem a feeñal yéene yi kañu yónni waaye yéeneem lamiñ mënu ko tudd mooy tam sunu yéene bopp waxtu yu du fi xaj waaye wépp yiw yéene na ko fi nu yéene nañ ko fi ñaan rek lañ koy mujjale sëriñ Moustapha yàlla na ngeen fi yàgg te yàgg sa bokk yëpp ak ñi doon taxaw yëpp ak njaboot gi yëpp ak ñi fi daje ñëpp sama bokk yi yii ma fi fekk naa ngi toog ñeeg sëriñ Xaadim moom sëriñ Sidil Moxtaar te sëriñ Muntaxa day wax ne liggéeyam bépp waxtu wu nekk day jàpp rek ne liggéeyam sëriñ Tuubaa lay ci ña ko jiitu ñépp waaye diggamoo sëñ Sidi Moxtaar ñu fàtte benn ñam kon bu nu fi sëriñ Xaadim fekk faaw ñu beral ko mu nuyoo ndax barki démb rek sëriñ bi waxtaan nañ ci lu bëree bëri kon noo ngi jégalu di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu njëkkanteeg waxtu yu ndax julli jot noo ngi sant bu baax yàlla na fi daje na gën a déwén kenn ku ne sa jéegu jéegu yi nga ñëwee ak ya delloo lépp ñu faral na ko ay bàkkaar te defal na ko yërmande sunu borom ak ndimbalam barke bu Sëriñ Tuuba jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokki julli yi teew fii ak taalib yi ñoo leen di nuyu kon jaa neefitu tafitu nuyoo tey jiite si nuyoo bi si Cheikh Abdoul Latif mi nga xam ne moo fi teewal Sëriñ Tuuba Sëriñ Muntaxa Mbakke xalifatu général murid ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi lool ba mu àggale ni eh, ni maamam ak baayam yi ko jiitu woon ak magam yi yépp ñu ànd ko moom ci ak wér ak tal ak jàppandal maa ngi sàkku ci kenn ku ne ci nun ñi mu ne Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg maa ngi jaaree di nuyoo bi itam nag ci sëriñ Bousso Bousso mi nga xam mooy sëriñ Bousso bi tey mooy noo jaarale ci nuyoo bi ci moom te ñaan yàlla moom itam mu àggale ni sëri sëñ mu ak baayam ya ak maram ya eh, tey ñaar taalibe bi itam eh, di ñaanal suñu bopp yàlla saxal nu ci lislaam ak bu taalibe bi eh, ñu li li li ma waroon a wax lépp daal li ma bi imaam Mor xam sa diine wax na ko lee soññee soññe na euh, li ci des itam sëñ ah, Cheikh Abdou Latif bi fi teewul sëñ Muntaxa sëñ sëñ Muntaxa toogoon boo waxee ba àggal du ma teg baat kon nag bi mu waxee jërëtul may guddal wax ji ndax waxtu yi te dafa xat léegi nodd timis ca timis bu noddee rek muy si dara maa ngi ñaan yàlla rek ñu teew ko ay déwén déwén ànd ak atal noonu la tax mënu mënut wax dara waaw jërë ngeen ñëf waaye nekk na tàllal sëriñ baa ngi ñaan Abdou Latif mi sëriñ Mountakha yebal ne ñépp nangu ñaan tàll seen loxo mooy ñaan waaye toll noo xam ne nee na Cheikh Mountakha daf daan da ko fee yónni ba tàyyi poroxaan muy ñëw fi di ko fekk si kon boobu nekkagul sëriñ Touba tey mu nekk sëriñ tubaa ne bis bi ñor na Cheikh Mountakha lool nee na xam na ci lu bari moom nee na sant na ñëpp ñun ñëpp nañ tàll sëriñ bi ñaan seeb la tifa ngi ñaan foo ay tool noo xamin